yéenekaay a Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf Cheikh Yérim Seck taq na ca ripp tribunal la ko wax ñetti kaso la ko yoon daan tegal ko ci nekkoon na ci tekk yëkkati ñetti teg ci loxoy Aïssatou Tall di xale bu jigéen bi ñu ne moom la Cheikh Yérim Seck doon yàkkataan Daouda Mine bu observateur jël xalimam ci yéenekaay bii di observateur tojal ñu droit ba wax ñu lan moo tax yoon tëj Cheikh Yérim Seck grâce présidentielle yéenekaay bi nañu bu ko kenn yaakaaral Cheikh Yérim Seck ndax a verdict ba ak na mu demee Walfadjri Grand Place nañu jamono ji ñu dajee di fàttaliku suuxu batalo Joola booba fekk na taskatu xabaar bi di Cheikh Yirim Seck moom ma ngay suux ca tribunal enquête dina kay nañu juge bi moo jël Cheikh Yirim Seck lem ko ñetti lem-lem Le Soleil mi ci wax ju teggnu ji moom yam ak ci Cheikh Yirim Seck tëj nañu ko ñetti ati kaso Cheikh Yirim ak biiñ bu mitti bi ci xët mu njëkk Le Quotidien yéene kaay bi nañu Cheikh Régime Seck direct info na ko jugal ndax jamono ji wute wut ak luxuskat bu ba génn ci rek dugg ci leneen jafe-jafey dar ko di ko gën di sonal journaliste bekk ñetti ati kaso yu ñu ko tëj maître Borso Pouy bokk ci awokaay xale bu jigéen bi nañu ci yéenekaay bi loolee baax na ci moom ndax dana tax yoolom génn noppalu ñu it ñu mën a noppalu Mané Diouf di doomi nijaay Cheikh Yirim Seck nañu ci yéenekaay bi wax ji wax ji moo di Cheikh Yirim Seck dañu ko sacrifié maître Abdou Dialy Kane di kenn ci awokaay Cheikh Yirim Seck yi nekk ci observateur waxati ko dañoo yàpp Yirim rek waaye xale bu jigéen biit kenn du moom ndax bu amee fitu génn kër ndayma kër baayam soli dàllam dem ba ca l'hôtel fekki fa góorug ñaari jabar goo xam ne bu ko màgget du loolu nga jaaxaan cib lalam ne ŋàpp ubbi ko naan ko def ma liyëg yem ma fee pendant quinze minutes ba leneen xew ca nga jug naan dañ ma violé maître kan ne loolee képp ku la ca topp waxalatul yàlla yàlla suñu borom dégg nay démb xeeti ñaan bu ca nekk mu di bés bi doon fàttalikoo suuxuk batala joola observateur nañu démb lañ ko doon màggal fukki ci ren waaye booba ak léegi musiba baak ña ko waral ba fi nekk nii kenn xamagu leen le quotidien nañu ko ci woon ubbil la Sénégal journal bi nañu suuxu batalo joola maître Ousmane Seye tooyal na ci ñépp kàdduy maître Ousmane Seye ba ca njëkk moo di nee madaani si xam na ñan ñooy responsable batalo joola mu teg ci ne lu jin njaag Habib Thiam moom mooy njaag moom mi jëloon batob joola jébbal ko soldat si ne nañu ko gérer mu ne atum 1995 ba suuxe wàllu kaaraange batalo joola mësu matal boole ceeg ci si ñu ko dénkoon nu leen neex la ñu yore wax gisuñu ko dégguñu ko dafa mel ne daf leen a ñàkkal fayda ñàkkal fayda bakkan yi nga xam ne ñoo des ci bateau Joola ndax Sénégal nga nekk ci tiis di ko fàttaliku moom mu nekk ci lu kenn xamul Le Soleil nañu ma nga woon ci États-Unis ca moom mi leen daje sax njiitu réew bi ak ni muy lay doxee wutali sunu làmb yër leen xët mu njëkk ma Moustapha Gueye mi fa newoon bërki démb ne fa démb moo fa nekk tey gannaaw bu mu paree ca Gris tey ji Sénégal muy Mohamed Ndao Tyson ak ñi ko dar di Balla Gaye 2 Baboy Modou Lo Gris Bordeaux ak Tapha Tine Tapha Guèye ñooñu ay naxa naxa lañu maanaam ay illettré lañu te seen pexe yooyu ñuy teg du dem fenn li naruta dem fenn baadu mooy li Aziz Ndiaye production di dox la tax yéenekaay bi di sunu làmb nañu duubalees di bàyyi Sa Thiès altine la appal Aziz Ndiaye ngir mu wax ko Sa Thiès kan lay bëreel lu ko mooy dana jël avance ba ko Aziz Ndiaye joxoon delloo ko ko ma des ba léegi ci sunu làmb ak yaawu jal ma fay teg ay projet moom yaawu daayira bi du bokkit ci association nationale des lutteurs du Sénégal gi Mohamed Ndao Tyson jiite waa sunu làmb ne ko nooy def mu ne day taxawal ab association boo xam ne mu ngi koy tuddee association des lutteurs des quatrième combats